tabaski ren moom wax dëgg yàlla ñu ngi ñii daal ñun di xaar client yi client yi nag génnaguñu ñu ngi am yaakaar waaw ñu ngi am yaakaar bu baax waaye daal marché bi daal ni ñu ko gisee nii moom tey na xel gisaguñu client yi benn yoon ñu génn nañ doon génne te heure bi daal ni xaw a gis suñu bopp heure bi daal ne suñu suñu marché dañ fi pour l'instant dañoo arrêté tailleur yi ne nañ bàyyi ñaw bi ba bañ xool li nga xamante moo daal suñu xel fi ne nii daal ñu ngi nii ni nga gisee nii place heure bi daan na fekk mu xat mais pour l'instant nii doo gis kenn ku romb balaa nga gis keneen ku romb mooy loolu. fi mu nekk nii moom bagage yaa ngi gis ngeen ko yëngu toogul bu baax waaye nag am nañ yaakaar ne si kanam dina tane. xam naa dëkk bi amul xaalis rek client moom dañuy dem ak ñëw di laajte rek. parce que ku ñëw day laajte nga ne ko prix lii mu fay la loo xam ne yoo amee woo sax loolu yére bi. xam naa la dëkk bee naqari rek. ren moom metti na moom ndax ñun ñu ngi nii yor suñuy bagage jënd suñuy bagage jël suñu xaalis def si teg si tali bi te doo gis client dëkk bi neexul ko koo mu ne dëkk bi amul xaalis li ngay jëndee woon sa bagage sax laa la wax dangay xool boo fayee place doo ci génne dara ndax duñ la fay lu ko jar dëkk bi amatul xaalis koo wax xalool lay jàmbat kenn yorul xaw ma nu mu demee noonu waaye daal doy na waat ñun suñu bagage yaa ngi nii kenn jëndu ko buñ la waxaalee duñ la fay prix bu baax. dangay mujjee obligé doo xam sax looy def dangay jaay loo gis dangay jaay ndax dangay jënd sa xaalis ba pare mu nar a diig noon nga nar see perte noonu balaa caa nga jaay ko. tabaski moom bu desaan ay 15 jours ñi dëkku àll dañ daan jënd teel a jënd yóbbante waaw mais fi mu ne moom ay benn benn rek ngay comme ñu sonn ñi di julli ji dañ daan jënd teel a jënd dem ñibbi préparé wu. waaye mën naa am na ñetti fan yu mujj yi am nañ yaakaar ne xañ na dina tane. xaa xañ na xaalis a génn rek ak euh, xew-xew yi fi xew euh, jamono yee paase ndax na ñu bari man amoon naa client gambien yi daan ñëw Fuuta amoon naa client yi daan ñëw mais niñ dégg réew mi ni mu yëngatoowee moo tey client yi ci bari nañu ragal ñëw parce que niñ koy déggee ci bitim réew yi ak yeneen réew yi ak yeneen région yi ameewul ni mu nekkee fii dañ koo fooroo ci diggante bi ci ginnaaw ba mu ba mu loolu moo ñu loolu moo moo liggéey bi. waaw ah, tabaski ren moom euh, clients yi dañu xaw a yéex a ñëw ndax xam naa dañ doon ragal ndax manifestation yi amoon moo tax euh, ñaaw yi yéex a ñëw quoi. waaw tabaski am na tout différence nag daaw xëy na moo gënoon a neex tuuti parce que ren dafa tombé ak euh, programme Sonko bi ak Macky Sall bi daanaka bañ commencé njaay bi tamit tox ko yàgg noonu clients yi bëri ragal nañuy génn ñëw si marché bi ndax jàpp nañ ne dëkk bi day tàng. indi ay problème manifestation yi moom wax dëgg yàlla yàq na lu bëree bëri moom nga xam tey jii ni client bi la nga xam ne moom daan teel a indi ñoom bu dee comme comme ni nga daan teel a ñëw mu ñëw par rapport ak ren ren moom loolu amul parce que affaire dafa affaire daa yéex a ñëw parce que nit ñi dañoo yéex a fayeeku comme booy affaire banque yi ñu yàqoon ak yooyu ñi nga xam dañu war a fayeeku duñ mën a teel am xaalis léegi bu ko defee ne après affaire euh, dafay yéex a ñëw bu ko defee ñëw day dalandoo sa kaw nag ñi nga xam ne ñoom duñ comprendre bu seen ñëw tardé après ñoom ñoo indi ay coow yooyu noonu te fekk yow te fekk demeewul noonu maanaam coowee rek nekkul ci tailleur yi manifestation yi ak banque yi ñu yàq ak yooyu ñu bëri dañ ragal quoi pour euh, kii moo taxoon ñu bëri tallu ñu woon événement bi mais instant bi yi lañ commencé tal événement bi na wax de xaw ma dëkk bi moo amul xaalis xaw ma xaalis moo génnul waaye daa xaalis a fi na ne nii moom xaw ma nu mu demee mais nit ñi tamit état tamit war nañ cee def jàppale ñu waale ñu si jaaykat yi xaalis bi génn ndax dëkk bi mën a avancé. ndax jël xaalis jaamur dugal ko ci ci cim njaay yaakaar jaay delloo ñañ ñañ ñañ ñañ ñañ ñañ ñañu ñañu financé te gisuñu client day xaw a tey suñu xel toor. xëy na daa tombé dëkk amul xaalis xam nga jamono ku ne xam ne dëkk xaalis amul te programme yi bëri na borom kër yi ñii dañuy jënd ay xar ñi bëgg a jënd tiisi ak yeneen yeneen peut-être duñu mën lépp lépp jënd leen lépp moo tax. Euh, xëy na mu dëkk bi xaw a mee tuuti par rapport ak daaw ak ren te daaw moom peut-être xaw naa tane tuuti que ren am na tuuti différence. waaw daan na tane moom parce que moment yi moom buñ ci tolluwaan bu wàcc daal dinañuy wàccaaleeg dara lu bon bon moom ay benn benn rek ngay gis. yi daaw nañ gën a gaaw ñëw ndax euh, ñoom bu tewee Tabaski bi desoon ay un mois rek dañ doon commencé di préparer di teel a indi ñaaw yi quoi. man de xaw ma kan am na wax dëgg yàlla gis naa moom มาทำเตอรีแบบสุญญ์ละมันกินกินมาจับกำบุญเนี่ยเนีเตอร์ไปไปได้ตาได้เนี่ยเนี่ยจับเราจะเตอร์เตอร์ไปเลยเตอร์มาทำมันนี่มาจับมวยลุลอมุนที่11มั้งมุนโอก็ลิเกินเดือนสิบเอ็ดมันลุลลาจับมันลุลลาลิเกอยู่บอกสาเดฟายเดฟายที่คิลั่ไอแล้วปะเดฟายเนี่ยเยอะขนาดเออเดี๋ยวบ่ายผมบัดเดอร์เนี่ยมาบ้านเนี่ยสองคนเยี่ยเดือนละที่สิบเฟ้ก็ดังเล่นนะครับบีนเล่นโดนเล่นมาเนี่นทุกอ่ะที่เดสมอมบาร์กุลมั้ง yaa ngi xam loo mën a jël rek xam loo attan pour mën ko ñaam yooyu daal. parce tamit xam nga client bu ñëwee mu leer yow lii nii kii boo jëlee ñawam ak yow li nga war a ñaw diggante mi ko soxlaa a bàyyi mu dem ko a tax na mën na ñëwaat su fekkee moom comprendre mais yow tamit bu bëggul lu ko neex bëggul nga ba jël ñawam te te doo ko liggéeyal bu ko defee mu daal di mer. waaw instant bi tisi moo gën til ak lafaya lafaya bi xew na Mbazin ak Pirxa yooyu ñu gën a xew tellement bu nekkee góor ñi fil à fil wala super 100 bi. arène moom ñun bari nañ ay ñaw góor ñaw góor yaa ngi fi Mbazin yi Mbazin Suisse gold bi yaa ngi bi ah yooyu yëpp dañ koy ñaw. client yi moom mooy loolu li ci ëpp daal moom daal moom moo ci moom Mbazin moo ci ëpp. bu nekkee da ngaa toog bëgg a paquet ba ay teg am ñoo xamante am ñu moyen boobu dañ jàpp ne bu ñu duggee prix yi ñuy jëndee day seer. léegi nga obligé wàcce bagage yi mën a def kamoon woo client yi wàññi prix bi doo am sa waxaale da ngay wax prix fixe rek wanteere ko même boo ci dàq dara nga dàq ko ci client bi ñu jënd mu gën a mooy seer sinon boo ko tegee transé ko rek euh, bëgg a jaay prix am na ñoo xam ne dañuy ragal a dugg waxaale. am na ay 4000 3000 bu nekkee magasin 3600 4000 tril bi 4000 3000 même chose pirxa paquet bi 15000 lafaya